suñ ci jamono yële am mbégte lool ci ñëw fii ci turu sëñ Abdou sëñ Ahmadul Maxtaar ci màggal gi xam ne seen màggalu maam la mu màggalu Sëriñ Tuubaa wala bis bi màggal yàgg nañ koo def wala bis bi li tax mu gën a am solo mooy dafa dajeeg téeméeri at yi ci hijri muy bis boo xam ne sëñ moom daa bëgg nu murit yeeg jullit yépp xam ne bis bi la sëñ Touba ñëwoon fii ci Touba. ak la ci Cheikh Moustapha daj ak la ko sëñ bi waxoon fexe ba mu ñëw fii ci Touba yàlla def nag yow la yàlla jox mu dajeeg sa toogaay muy centenaire bi ñëpp yéene la ko tam ndax xam nañ sa liggéeyal sëriñ Touba ci xalifa yi ñu fi jëkk a jaar yëpp nag ba lii tegu sa loxo ñun fekkee nañ fi lu bare bare bare te kuy murit rek ci Pastef ak liggéeyal sëriñ Touba rek mën na koo rey ci yow mm, loolu moo taxoon sëñ Ahmadou Makhtar nee na sax waxtaan waxtaan na ca yow moom mu ne sëñ bi bi ma ko waxee daf ne ma moom moo ci jiitu ndax lii lu am solo la waaw loolu moo tax nag ñu ne ñu am mbégte lool ñëw fii dañoo ñëwaat rek pour di la ko waxaat rek confirmer rek wande yëfi moom sa yëf la yow lañ koy defal waaw bëgg nga ñaanalu ci bu baax a baax a baax jàppale saahir wa baatin ndax yëfi mën a mën a réussir ndax àdduna bépp lañ bëgg fu nañu defe ko fa ñu tam ay conférence yu bari ay ay kii borom xam-xam yu bari dajale nañ leen ci euh, région yëpp lañ bëgg a dem tam fu ne ñu def fa ay conférence ak nangam gën a la xamal mi gën koo tasaare loolu daal mooy li nga xam ne moo taxoon ñëw di la ko wax ah, incha allah loolu mooy waaw loolu mooy sama yitte waaw te lii day tax sax bu taalibe yëpp bu ñu la gisee danañ xam ne lii sa yëf la dañ tax engagement buñ ci gënoon am ñu gën ko cee gën ko cee yokkata waaw jërëjëf Mbacke loolu rek moo doon ah, bit waaw jërëjëf ñu seere si ñu seere sant na bu baax daa bëgg wax yéen nañ ko itam baax baax baax xam na ni mu demee itam ni ngeen ci bëgg lépp ak li ci jublu xam nañ ko bu baax a baax parce que nañ ko ànd ak yéen ndax ñëpp a ko ñëpp a ko bokk te te te loolu daanaka lu mun la ñàkk la mm. ndax man noonu may wax yoon wi yoon wi yoon wi bëgg sëriñ bi ak topp ko fii mu ak moo ko fi andi mm. waaye taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko mm. xam léegi nag xam ko xam léegi dund ko loolu mooy mooy mooy la ca mooy la ca des loolu nag dëgg la amul yemaay waaye wan nañ ci jéem suñu kéem kattan ndax sëñ bi moom mënees nekkul a xam eh, waxu waxu wala di ko dund. waaye nag ala kulli xel itam eh, moom moom moo moo moo war a doon suñu yitte. moo war a eh, ak dund ko rek moo ci des moo des suñu gëm kàttan nag loolu nag kon bis boobu moom kon dara jiitu ko ci loolu. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw day wax ne euh, yoon bi mu àgg euh, bëgg sëriñ ak topp ko rek moo ko fi indi waaye nag euh, taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko kon nag li ci des mooy jéem waxtu wu ne mu suñu te jëpp ñu def ko ci jéem koo xam jéem ko dund loolu rek la rek la am donc daan daan gën a yeesal yaayante ci sabab si gën a fedd suñu laa saay ko gën a ànd ak yéen incha allah jërëjëf. jégalu bu baax Mbacke ndax sëñ bi bu xasee yëkkati kàddoom waratuñoo yëkkati kàddu waaye ni ko suñu am na suñu seex waxee léegi ginnaaw ku tedd ki bi mu ñibbi see Tuubaa léegi ci atum hijjiriya bi mooy téeméeralu at bi ñu jàpp nag ginnaaw téeméer at ginnaaw sëriñ bi ni nga ko waxee léegi am na taxawaay boo xam ni waras na ko cee taxaw ba ñu ko umpale gën gën koo xam bu baax mm, ñi ko xam itam yokk seen xam-xam ci sëriñ bi ndax téeméeri at yi bari na loo xam ni xew na ci mm-hmm. bari na loo xam ne am na fi ñoo xam ñi ko fi wutu ñëpp ba sa jëm ji liggéeyal nañ ko mm-hmm. muy liggéey bu ràññi ko boo xam ne bu ci sukkandikoo mm-hmm. manees naa xam kan mooy sëriñ bi mbaa manees mën nañ dolli ak leer ci moom ci biir loolu nag euh, bay Ahmadou Barxa bi mu woowee njaboot gépp nag la la woo amul fu mu ko yemale ñu def réunion ci bayti dem ci moom mu ni woo yónnee suñu Ousmane ci yow sàkku ndigal ba nga jox ko waaye nañ delluwaat ci yow euh, leeral la ni nga xam ni noonu la jàpp ne bu ñu ko defee dina gën a yaatu dëppook téeméeri at yi mooy su insha allah ci sa ndigal euh, fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñëw ñu dem Masalikul naan man faa def ndaje moo xam ne képp kuy kilifa dañ lay invité nga ñëw fa mm-hmm. waaw waxtu borom xam-xam yi nga xam ne ñooy sañ njaboot nag te dëkk Touba ak ñëpp nga xam leen mm-hmm. ñoo fay fas yéene waxtaane téeméeri lu at ginnaaw sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci wàllu développement ci wàllu liggéey ci wàllu yar fànn gu nekk am na ko koy waxtaane mm-hmm. fukki fa ak ñett lañ ko bëgg a ubbee ca Ndakaaru incha allah suñ fa jógee dem Louga xam nañu Louga euh, am na taxawaay bu mag ci yoon wi te soriwut ak ndar itam su ko defee ñu waxtaanee fa itam euh, maanaam téeméeru at lu ca mën luñ ca mën a waxtaanee mm-hmm. waxtaane foofu ci mm-hmm. bu buñ fa jógee njaareem gi nga xam ne fa lépp xewe euh, ci ñaar fukki fan euh, ci weer wi ñu ñëw tëjee ko fa mm-hmm. def fa conférence bu mag itam yëpp ku fa mën a ñëw ñëw fa ñu waxtaanee waat fa la nga xam ni ndax gis nañu ni fonk gi nga fonk ak ni nga koy dundalee ba weer su teroo tam gi ñëw nga dem njaareem Euh, daa ko fa def ànd ak soo ko ñëw fii loolu lépp moo tax euh, xam naa bi ñu waxtaanee ni nañ nañ ko defee foofee euh, tëjee ko fa suñ magalee ba ci suba nag ñu def li ñuy wax synthèse xool liggéey bi luñ ca amee ak luñ ci nu tuddee loolu lépp nag dañ ko bëgg def ay téere ci làng yëpp suñ boroom xam-xam yi dajalee seen xam-xam ba noppi ñu def lépp ay téere nit mën koo jariñoo loolu daal mooy li nga xam ne moom la sëñ bi waxoon nañ ànd ñi nga xam ñëpp seen njaboot lañu ñëw tënkal la ko su ko defee itam dañuy dañuy sàkkuwaat ci sëñ bi rek euh, ndigal yi gën a dëgër ci taalibe yi ba niñ ko war a dundalee fii ci euh, Sénégal itam mañ ko dundalee ci réew yëpp loolu rek mooy tànk ñu ngi jégalu bu baax nag xat te wér ci barke Cheikhul a baax loolu rek la loolu rek moo fi nekk moom dañu sëñ bi rek mooy liggéey bi doo sëkk biir bi tey ëllëg te loolu loolu moo ci jiitu waaw xam xam xam le ko ak ko rek kon koy jot itam mboolem mboolem mboolem mbokki taalibe yi xam ne lool loolu amul yéen yéen yitte loolu sax dàkk ci yittewoo eh, sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko Eh, kon nag nag kon nag kon mboolem ku di ku ku ku ku taalibe mboolem mu taalibe yëpp murid yëpp ñu ngi leen di fàttali eh, bis boobu boobu sëñ Ahmadu eh, ànd ak bokk yi njaboot gi fas yéene koo def ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko nañ ko àndandoo rek te te gën cee yokk suñu itte gën cee gën cee gën cee sàmm suñu positif gën gën gën gën gën gën gën gën ci euh, taxaw bu baax a baax a baax taxawaay rek mooy am solo euh, yombul waaye euh, mënut a ñàkk kon nag loolu lépp buñ ko boolee tax taxawaay la rek mu xam ne dañ ko war a bokk taxaw ko taxaw taxawal ko sëriñ bi. moom sax sax dàkk rek ci ci ci ci liggéey ci jaamu yàlla ni mu ni mu ni ko bëggee ci noonu ak sax dàkk ci liggéeyal ko rek te yàlla tax jërë ngeen